rek ba su dee moom ku dund doo gor suñ jugee ci loolu ma ñëwaat ci liste bi rek ñu ñëw ci kaaw Samuel Sarr yaakaar naa ne su ma ne Samuel Sarr ñëpp xam nañ Samuel Sarr Samuel Sarr nag mu ci liste mbaaco bi Samuel Sarr mu ngi ci liste bi te yaakaar naa ne kaa boobu dinaa ko traité léegi ci kanam parce que Samuel Sarr nag moom mbaaco am na fuñ jaar te jaar-jaar bi yëpp mu ngi sama digg loxo parce que nee naa leen man am Amzo lu may wax rek kaa bi daf may leer kaa bi nag bés bu ma demee ba leer ba set ma ci laay doog a génn def sama annonce def sama band pub bu leen wari nag maa ngi gis nag may laaj kaawu Ndeye géey bi dina ñëw maa ngi gis ban kaa ngeen ma laajoon kaaw euh, laxaat kaaw laxa kaaw euh, euh, laxaat bi tëri xéewal dinaa ko indi man kaa bu ma piblier rek dinaa ko indi Ah, kaawu kaawu jëkkëru aram ak ñoom eh, aram ak misu bi dinaa ko indi man kaabu bu ma publier rek ba annoncé ko rek man lépp luy détruire Mbathio Ndiaye suba bu guddi rek maa ki man doxuma ci dara kaabu buñ ma indil bugguma kaaboo bu man kaabu bu may wax rek mooy luy mba damay jënd billet first class aju ca kaw avion ba toog climatiseur bi di ma upp ma wàcc ak Air France jas ma indi samay cortège dina mel ni ba veille yi di wàcc Sénégal lii laa indi koova wax policier yi ñu xaalal ma yoon bi ma jiital cortège bi dem tribunal wuy ji parce que man dama am fit man ba man dama judd rek dox jàngu ma raam bokk ma ci xale yi nga xam ne dañuy raam di xoosu man dama judd rek dox dem doxi sama soxla man yàlla ma teral ci loolu kaay fii la toll ñoo ngi ci épisode dix léegi nag kaa bi fi mu toll mooy maa ngi nekk di wax ak sama producteur bi xam naa di gërree ba dagg di wax ak sponsor yi parce que nag kaa bi dafa war a ànd ak sponsor parce que wax dafa métti sponsor yi dañuy génn ndax kaa yi ma am dafa bëri kaa yi dama koy tas parce que nag soixante quinze mille soixante quinze mille vues soixante quinze mille vues du ay caaxaan yaakaar naa ne xale yi sinab yëpp amaguñ lii soixante quinze mille vues ay caaxaan kon nag sponsor yi laa nekk di négocier di waxtaan ak ñoom pour ñu signer contrat bi suñ paree nag sponsor yi di dugg may tas kaay sponsor yi di dugg may tas kaay kaay dafa garaaw de nee naa leen à tout moment xaar leen turu ministre à tout moment xaar leen turu chef de cabinet à tout moment xaar leen turu garde corps à tout moment xaar leen turu député à tout ñii di wut maire yi nag ñi nga xam ne dañuy campagne di wut maire yi nañ ma jël ma wax ñu waxtaanee ko seen liste yaa ngi ci tur yi am na ñu bëri xam ne ñoo wut maire yi ñoo ngi di seen maire gox seen turan ci liste bi nañ ma jël ñu waxtaanee ko balaay balaay seen waa gox duñ leen watteelati parce que cas bi dafa critique te de damaa tiit ba pare man li ma jaaxal man liste bi cent quarante la woon ak soixante douze yoo xam ne point d'interrogation laa ci defoon soixante douze yi nag awma ci woon lu ma leer waaye soixante douze yi quarante preuve wàcc na léegi quarante foog naa li def ci soixante douze yi soo dindee ak quarante quarante preuve yi soixante douze yi soo dindee quarante preuve yi yaakaar naa ne trente deux moo ciy def man nag dama ma jàngale dama def mathématique bu garaaw trente deux yi nag point d'interrogation laa ci def parce que 32 yi ay waxu kaso koso la man moo tax am doo mën a leen lamp yi su tàkkee rek kaa bi su kaa yi